isharatu taksi waaw ba ca des mooy biir ba ci biir dina def dana def miracle ñu ni biir nag miracle la mooy bépp biir boo xam ne yàlla yëg na ni lu lewul dugg ca biir bu masul a lekk lu xaram mukk masul a lekk it lu daganul mukk nee na kii bu amee karaama sharia yàlla def ca fatxum nee na yii yomb na ko ñu taajal ko ndën loo xam ni mook ñi mu toogal rekk ca la yem ñeneen bett leen ñëw te ndën na lool noona la day ndën la suur ñëpp ca la bokk ñu ni ko ak ban mu ni boo ca yéggee yàlla def ca fatxum nañu jël yàpp nañ ko empoisonné jox la buy dugg di génn ñu ni déedéet sax du laaj nga lekk bu ñu la koy taaj ñam bu ñu la taaj te leneen nekk ca loolu lay génn ba ca kaw ñam wax la ni la maa ngi dana ca bokk yi ci seen karama boo leen bëggee teral te li nga leen defaral juboowul ak seen namm-namm am na lu lay façonné ba ba ngay jàpp la ngay indi mook lañu ñu namm benn lay doon yu tuuti tuutaan la waaye yooyu yëpp ci karamatul wali yi la bokk bokk na ca it ñam boo togg woo leen ñu ñëw sa kër lekke ko fa buy dugg seen biir yàlla siñe ni yow texe nga ba abadal abidin wala ñuy dox rek romb sëgër ni ah, may ma foofu tuuti ndox nga yëkkati ndox ba jox leen ñu naan ko mu sedd seen biir ëllëg di nga naan ca anhaarul janna mu des nag awra awra benn ñaari miracle lay def kii ci góor kii ci jigéen awra boo xam ni boroom sàmm na ko ba defu ca lu xaraam yàlla mën na fexe ca xawra ba ba bis bu borom bëggee njabootu nitu yàlla am na nu yàllay véhiculer sperme ba turu yàlla ba nekk mo franchir yëpp ñëw nangu au ville bi dugg ci bu dee jigéen momit ci wàllu googu mu bañ a am jëkkër yàlla xëy may ko doom wa maryam abnata imran allati ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruuxina wa saddaqat bi kalimaati rabbiha wa kitaabihi lay ndeysaan ah bal leen ma de dama lu won sama baye ilaa ci ndiaté mbay ah ndeysaan ndeke mu ngi sama gannaaw tabarakallah yalla yalla yok, nee ya, na ba ci des moy tank tank bu doxiwul caaxaan doxiwul lu bon doxiwul ngir yàq lu lul dox ngir yiwu yalla ak mbaxu yalla yàlla nee na bokk na ci ya ma koy tërale bis buy dox ci ndox bu ko neexee muy kekk am na koo xam ne dina ànd ak nit ñi ci ndox ñëppuy xuus muy dox ci kekk nee na bokk na ci it buy dox ba romb fu musiba nekk musiba ma dana yëg lu bala muy yegg si moom tànk bi nee na bokk na ci itam fu ko borom xas ba teg ñooña mucc nañu dootu ñu yëg mukk ngaañ ci seen dund bu juróom ñetteel bi nag mooy xol ñu ne xol amul karaama ndax mooy ummul karaamaat moo war a jur kéemtaan yi cër yi yëpp benn mënu cee def lii te du xolo ko conditionné ndax innama al amalu binniyat kon bala ngay wuti karaama fexeel ba ba sa xol nekk baytallahi alxaram am na ku soxlawul la aji màkk xamoo ñàkk pexe la amna ko xamni lu mu soxla ci kaaba ga ci xolam la koy wute parce que xolam kaaba la te moy ñay yegg fo xamni ni bu ñu soxlaa kaaba ga sax kaaba gi ñëw fekk ci leen inna lillahi ibadan tatufu bihim alkaabatu almukarrama kon nak yàlla neena na yoon war ne di borom wilaya yëpp nee na fukk juróom ñett lañu la loolu ñun bu ñu nee wilaya rek ñu commencé seenu asamaan te wilaya ngi commencé ci nekk jullit mais yàlla nangu ni jullit nga sa wilaya commencé na waaye nooy nekk jullit المسلم man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi gis nga sharia ba dugg si waat képp ku dund ak nit ñi te sa làmmiñ gaañul nit ñi sa loxo gaañul nit ñi yàlla nee na muslim nga te bu boobaa wilaaya dugg na loo wax yàlla mu def أنت وليي في الدنيا والآخرة أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما جيخنا كتابته موي المؤمنين والمؤمنات نعمت والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض تيكا ورا يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر كويك ني دغغا تا بوباي ولايه دغنا القانتون والقانتات متخ ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون كو ساغنا وولو سا بروم نك يكني ولايه نغي تي الصادقون والصادقات هذا هذا يوم ينفع الصادقين صدقه الصابرون والصابرات مطع إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب الصائمون والصائمات يلا نينا كن دوكو فاي نحقر من لا ما كوي فاي نحقر قابك إلي ما نشيم من نكو آتي يلا ركمنا آتي كيور koo xam ne fa muy lekkee fa muy naanee bu ko neexee doo ko xam kooku yàlla rek ko mën a atte ñu ko ak ban mu ne alxaafiduuna furujahum wal xaafidaat mooy biñ leen tuddoon léegi ci awra bi ñu ko ak ban mu ne azzakiruuna allah wa zakirat uzkuruni azkurkum washkuruni wala takfuruni ah yàlla nee na ku ma tudd rek foo ma tudd tudd naa la te yàlla nag yaakaar naa ku muy tudd yaakaar dugg na waaw ñu tax ban mu ne attaibuna wa attaibat moo tax laqad taaba allahu ala nabi ak ña mu àndal ak ban ñu mu ne almutatahiruna wal mutatahirat inna allaha yuhibbu tawabin wa yuhibbu almutatahirin muy ñaar yëpp alhamiduna walhamidat te mooy ñi nga xam ni dara du yëngu ci tabi'a bi te du leen delloo ci sant yàlla te xam ni lépp mooma rabbana ma xalaqta hada batilan ak assaa'ixuuna wassaa'ihaat ñu ne yonent bi mooy ñen mooy ñi nga xam ni bu yàlla soxlaa sen temps dootu ko fekke seen alal dootu ko fekke seen deret deret dootu ko fekke ينقعك بن من الراكعون والراكعات الذين هم في صلاتهم خاشعون اركعوا مع الراكعين أقوى واسجد واقترب آه. هناك عقبا من الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر كنتم خير أمة أخرجت لله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر هناك عقبا من الموفون بالعهد إذا عاهدوا ومن اوفى بما عاهد عليه الله نك فسيؤتيه اجرا عظيما ينك عقبا من والواصلون ما امر الله به ان يوصل ويكو خم بني فك دار لوي نرا ياكو ت فخيو ني بابول يا ورا بور ني ان فك نك يالا نينا ني ньо йор сама казерни. فإنهم هم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ni ñuy structuré armée noonu la ko yàlla structuré nit yàlla yi kenn ku nekk ak fonction ba la yàlla jox par distinction la ñi ay chevalier lañu ñi ay officier lañu ñi ay commandeur lañu moo xam ordre du lion wala ordre du mérite c'est une façon de parler waaw mu mel ni ñi yàlla am nag ci wàllu googu distinction yi bari na ci cadre yonent mooy distinction bi gën a élevé cadre nubuwa ci biir nubuwa googu nag ki nga xam ni mooy chefu nubuwa yëpp yëpp yëpp mooy Seydina Muhammad gannaaw cadre nubuwa cadre siddiqiya moo ca tegu siddiqiya de ñu ñoo tudde aqtab yu dugg aqtab yi jamono bu nekk juróom ñaar lañuy doon ak seen chef alqutb al akbar te dégg ngeen ba tàyyi nit ñi ni Serigne Babacar Sy qutb al akbar te it fenn ndax ki mu doon na tax ak tab yi bu yonent bi dee présider séance yi ca xaaru xiraa ñoo koy dar ñeentay toog ci ndeyjooram ñettay toog ci ci càmmooñam tey seen chef nag moom lañuy tudd tudd alwakil moo tax bu yonent bi mënul la présider séance bi mooy présider mooy assurer intérim bi ba keroog yonent bi di dell si te Ahmed Tijani nee na ma suma fay yëg keneen baatin la waaw ku ko weddi doo fanaan waaw ndax sëriñ Babacar see ko wax wal gaws wal barzaxu al maktuum aaliya aqtaabi rijaali kii leneen desu fi كوربي القطب الاكبر بوبو ماي الجامع لكل الاحوال والمقامات حال يو نيت يالا يو ورا دوند كين كو نيك باغا تا ورا ام مولاي ديفال اتنتاسيون بي مقامات لي لا وار دي اليفي اوسي ديستينكسيون بو نك موم موي بريباري موتا كوم لي نيو واخ اي ايكول دو لار دو ديليون ني جيتنا بو ياك اي اوردر دو ميريت امنا فنن فوني كاي واجالي ko defee nag alxawsu ñëw albarzax ñëw almaktuum ñëw ak mafatixul kunuuz bu ci nekk nag distinction la gis nga xaws ak barzax ay ministre délégué lañu ci wetu xutb bi kenn kay féetewoo wàllu malakut kenn ki féetewoo wàllu mulk ñoo koy jox renseignement yi nii la demee mu ni def leen nangam intervention bi suuf la war a jóge jox leen ordre yi sàngam yàlla nga yeneeni soldat yu ñu gisul intervention bi kaw la war a jóge ñu ni ko fëggal malakut moo tax gis nga am na ñoo xam ni tàyyi nañoo nekk fii di ñaan parce que saalit lay tudd ci ñoom rab ñu leen ko ñaanloo am na ci seen ministre délégué yi kuñ koy chargé kooko koy toppatoo amuñu jotam ñoom bi ci am solo te ñu mën koo toogee ci garaatu yii yëpp nag te léeg du tekki dara mooy baatu xalifa waaw foog ma leeral leen ko noonu am na foo tey yegge donn kër yi yëpp toog ca kaw ñu tudd la alxalifatul akbar nga xam ni tey waa kaw suuf yépp yaa donn lu ñu soxla ñoom ci fii it ci sa loxo lay jaar lu waa fii soxla fële it ci moom lay jaar wala góor ga toll woon ni leen ku ci jàng allahumma mu jaar fii waaw ñu ci des nag bu waa état major génnee ba noppi ñu ci def ay officier ki euh, sergent la ñuy doon ak i caporal ah ku ci nekk ak nag waa génie ñëpp a ngi ci biir borom ayu borom armée de terre ak armée de l'air ak armée de mer ku nekk ak sa wàlla ak ñu yor sécurité territoriale ñi yëpp nag ñu ci des a ko yor ndax al dina dikk manam batu khalifa bi ma wax sank rew mi ku jóg ñu ne la khalifa nga te dama xamul khilafa gi nak ci khilafa adam la delu wala ci bu daoud affaire bi fofu la ndax xilaafa aadama nga donn wala xilaafa daawud inni jaailun fi l ardi xalifatan ba tax ña ca des tiit ni atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima kooku ku mu neex nga am ko ci sa kër baay fa ya daawudu inna jaalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq kooku kooku décret la ca kaw lay jóge te xalifa Babacar si nekkul woon magum kër du taawu Maodo Seydi Ahmed si mooy taawu Maodo te moo donn Maodo parce que décret la moo wax ni Maodo sagam laa ci ma donn ko bu ma jurul woon it ma ma doon li ma doon مدف الأوتاد نيب تي بير كازيرني بي لانيو بوك الأوتاد نيوم لانيي بلانتي تي لي كات كوين كاردينو شرق غرب شمال جنوب كان كي تي تيتر عبد الحي كان كي تي تيتر عبد العليم كان كي تي تيتر عبد القادر كان كي تي تيتر عبد المريد

مودس الابدال الابدال اي سيبليان لا يوم جروم نيار لا ني دون نيوم لا يالله يجوخ لو ورا ام تي باراب تي نيت تنكو ورا ديف تي موم وارول تيب تي نيوم نوي جيل لا ريسبونسابيلتي ديم ايشانجي au lieu kooka nekk fa ñoom ñooy toog ci jëmm kooka wa ma qataluuhu wa ma salabuuhu walakin shubbiha lahum wala boog jë am foo xam ni laaj na jëmmu nit ki teew fa te mënu faa teew ñu jël ci ab daal yi kenn mu dem ci jëmmam la fay teewal ñu naan diw ñëwoon na te fekk na diwa nga ca fu kenn xamul mu def an nuqaba fukk ak ñaar lañu gis nga ñooñu ñoom la yàlla féetale al burujul falakiya astre yi astre yi signe de zodiaque yi fukk ak ñaar lañu signe bu ci nekk am na kenn ku ko yàlla jox ci naqib yi ñax moom siiñ boobu yépp seen dund lu ca war a xew ak lu ca war a tàbbi rek siiñ bi dana leen ko wax parce mooy ordinateur bi ña ko war a yëg dinañ ko yëg intervention bu mu laaj ñu joxe ordre yi diw dina dee balaa ñetti fan bu duggee dina accidenté kilifaam yëg ni bëggul mu dee fi ak ñetti fan ñu jox ko ko ci ordinateur bi موني داخل نابليكي حضرة الغيب نديف ابل بحضرة الغيب ني لانسي ميساج بي مو جار كابينه ني генي افي فافورابل ني دم تا الوحيا لي 360 تابلو بروفيزوار نا كون نك ديسيجن ديكني ndax dañ ko naroon yóbbu ci ummul kitab kon nañu ko dindi trois jours la dese woon mais ci barke kilifam nañ ko yokkal ñaar fukki at borom naam gis nga ku ci dul ñii nag wali yu nga moo tax sëriñ Babacar Si nee na nit bu de bu jëlee ci yàlla nees la waaye bis bu raxee seytaane nag dootul nees nees nees la arab la dëkk waaw nee na koo gis bi rek muy jaxase di dugal yu bokkul bokkatul minan naas yi وقلنا اسمعت له لخ يوسوس في صدور الناس وطيوحي بعضهم الى بعض زخرف القول دي كانت يجيني اقيونيكي فكا شيطان من السردلجي مؤم جرم نعرلا منستر درجة يما أم جرم نارلا مدحش خنزب زلبنون أبتر منشوط شوط waasam ak aawas gis nga midhash képp kuy ponkal di mbër moom na la seytaane iblis di booleel mbër rek la soxla ku naan léegi nga yegg ca yàlla rek la soxla jóor la ci suuf léegi boo takkuwul mu gàññ xinazb moom la ñu féetale jaamu yi booy jàmm muy jax-jaxal sa xel ndax ràkk bi mat nag ndax dama julli ñaaram wala boo julli lu ne mu dugal ko ci sa biir